contradiction yu ni yu ni xalaat parce que moom Aliou dafa waxoon ne day conserver ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël coupe d'Afrique bi voilà ñoom presque ñoom la jël waaw non pas presque kese la waaw nag Habib Diallo bu ñu fa bàyyi nag ça fait ça fait vraiment mal bu amul sax un coach mental ça peut jouer sur il a il a plus de de de compétition que Famara Diédhiou qui revient de blessure qui a quelques minutes c'est c'est ci ñi demoon CAN uh-huh. ci attaquant yi dem kaan moo ci ëpp compétition moo ëpp la moom moo la gën a kii moom ak bulaay Dia. il a marqué hier. voilà moom ak Boulaye Dia léegi booy woo booy woo. booy woo sincèrement booy woo logique bi mooy xam nga lan la bulaay Dia Habib Diallo. loolu mooy logique bi. dégg nga mais moom mu bàyyi fa dem indi. mais Bamba Dieng yéen di wax euh, Famara Dieng joxe mais Bamba Dieng. ah Bamba naa football de. bon d'accord mais Bamba Dieng Bamba Dieng n'est pas titulaire dans son club. waaw voilà voilà la. voilà léegi bon boo xoolee euh, kii euh, Habib Diallo. ci saison bi joué na mille cent et quelques minutes. dugal démb la dugal si sixième bi yow. mi ngi doon ren doon na équipe nationale quatorze euh, sélection la am dugal deux buts mais moog bu laay jàpp presque ñooyam rek bu laay jàpp dix neuf sélection la am dugal deux buts mm. léegi nag. lan mooy problème am ak Aliou Cissé loolu moom c'est une grande question boo xam ne ñun dañ koy. dañ koy poser quoi. parce que li li li Nicolas Jackson c'est vrai xale la def na lépp mën na ñëw nag mu nekk révélation mm. mais moom il n'a marqué que deux buts avec Villarreal. Mm. joué na sept sept cent soixante quatorze minutes si je ne si je mu ëpp ko sans compter les les autres kii mm. on n'a rien contre lui mais bon xëy na peut euh, euh, comme li ma gis li ma gisee waa la convocation de la récompense loolu lañ ko tuddee parce que c'est lui qui avait marqué quatre buts lors des éliminations lors des éliminatoires mu dugal trois buts contre Namibie ak benn but mu nekk meilleur sénégalais boo xam ne moom moo dugal donc Aliou Cissé xëy na peut-être mu ne ko yow yaa yow yaa yow yaa tax ñu qualifié mais logique la peut-être Amdi est-ce que ah le sentiment léegi nag waa léegi nag football dafa am sentiment mais mais non non ah léegi non non non attends non attends léegi attends bu dee loolu. bu dee loolu na ñoon di sentiment. non non waxuma sentiment kaay ma non non kaay non bu dee loolu la waaye il a joué na nga bon. je prends Saliou Ciss je prends Saliou Ciss qui a été. Euh, maanaam le détonateur le meilleur le meilleur de notre Coupe d'Afrique. mais amul club et xaar oh, ah, ah, rek. ak suñu qualification. coupe du monde mais non non. et puis le gos qu'est-ce qu'il fait. dinaa leen ko wax y jii. Hmm. bu dee dañuy wax sentiment. Aliou Cissé li may wax nii. Eh. billaahi Aliou Cissé xam na li may wax. Eh. déglu bu baax li may wax. dama ne. le gosse qu'est-ce qu'il fait. Saliou bi mhm. ñu toogee ne depuis que Aliou Cissé a décrété te da ko wax di koy jëfe képp ku joué championnat exotique du ma la woo équipe nationale. vous vous rappelez de cette phrase là. moom la maintenir. et au sein de la fédération dañ ko dëggal jàppale ci Aliou Cissé. mais après changé woon na discours de. déedéet non xaarate attends musul même lu mu changé musul. Euh, convoqué musul convoqué. côté convoqué leen quoi. Oh, loolu la booy nag dañoo xam loolu. Famara bii di wax xam na li may wax Famara amoon na benn contrat bu rëy ci dëkku naar yi. avant la coupe d'Afrique mu ne non non waaw moom mu dem Turquie nañu wax ne dëgg Saliou Ciss quest que qu'il fait Saliou Ciss ñëw agent am ko mu am trois destinations foofu. Ah ay yoo xam ne xaalis bu weex tàll laa la wax. xaalis bu weex tàll. foofu championnat ci euh, mooy championnat exotique yi. Mhm. mu ne non non du ma dem. du ma dem parce que bu ma demee du ma jouer coupe du monde. je préfère non moom njuumte la njuumte la. je préfère rester ñefe. pour déclaration boobu njuumte la. pour rester pour sama club ah pour sama équipe nationale. kon li nag bu bu ñuy wax sentiment. waaw looloo gën a sentiment. pourtant il a dit. sentiment na ngeen wax ñu non non moom expliqué na foofu waxuñu foofu sentiment. parce que dama ne am na comme par exemple coach bi nga xamante ne. sa meilleur joueur ci sa qualification maanaam loolu boo si xoolee maanaam seen taxawaay ci équipe nationale moom dafa wax Kao Saalum si dafa ne un joueur qui n'a pas de club. fan laa ko convocation. pour ñu woo ko. léegi après yow mi nga xamante ne jaar nga foofu peut-être nga cee andi tontu. mais après logique bi xam nga lan la. Mm-hmm. bi mooy. Mm-hmm. il connaît Saliou Ciss. tu sais les débuts de Saliou Ciss a été critiqué. effectivement merci moom moo ko jàppale ah. voilà moo ko jàppale ba ñu wax ne bravo. <coughs> il a il a gain de cause muy ci final. ci ci sunu coupe d'Afrique. Mm-hmm. meilleur arrière il était dans l'équipe type. mais y a un moment mais il suffit juste de communiquer avec lui. va va dans un club. quand tu t'entraînes dans un club et tu peux faire trois matchs ou deux matchs dans la semaine. Mhm. match amical bu club bu bougé ñu créé la ay match amical. Mhm. parce que gis nga li ñuy wax service bi nga wax sànq. Mhm. bon service rendu kii mënoon na ko ci boole. kii mënoon na ko ci boole tey dans tous les clubs bu fekkee un joueur qui a pas de contrat certains clubs ne te, te permettent de de s'entraîner avec eux. léegi yow boo Daniel Alves mu ngi réserve euh, Barça mais euh, kii woon. Brésil la war def mooy dans un tey jox la exemple. Omar Daf c'est un copain à Aliou. ah voilà. va t'entraîner à Dijon. maintenir ko Omar Daf di ko defloo chaque dans les clubs chaque mercredi tu fais une opposition. le dimanche tu fais une opposition ceux qui ne jouent pas par exemple les les les remplaçants mais am na ñaari match par semaine. fii léegi-léegi championnat de France li ma ci xam di nga di nga jël carton rouge doo mën a jouer 4 ci mois boobu club bi defa la benn feuille de route. ci semaine bi di nga ci am trois matchs par trois matchs amicaux mais match gis nga quand a euh, des matchs amicaux sa tànk dafay fees ak compétition moo gën jour bi nga xam ne il est titulaire dans son club et il joue que le samedi et toi tu fais trois matchs mm. même bu dee match amical t'as des am nga replacement ci biir terrain am nga loolu ba nga xam ne tey kii service en demande na ci bokk parce qu'il faisait partie de meilleur aujourd'hui il a un problème de l'arrière gauche dëgg la j'ai rien contre ay Ballo Touré rien contre qui que ce soit mais c'est juste que kii waroon na mën a dem ma joxaat la beneen cas mhm. coupe du monde bi passé mhm. ñun ñëpp ci bokk wax mhm. il a pas fait un seul match une seule minute il a pas fait dans son club il était blessé muy karambooj te pourtant woo na woo na quoi <laughs> mais kii tey waroon na mën a dem effectivement c'est c'est c'est peut-être moom mooy entraîneur lu ko neex mu ne mais juste rek kii tey di service rendu benn c'est un professionnel il respecté te amoo loo ko mën a wax six mois yi mu ci jógee nii moom da ci waroon jàpp ñun ñëpp ci waroon jàpp tey Sénégal yëpp yuuxu ne na ko yóbbu même bu dee day dem nekk vingt quatrième ou vingt sixième jour il devait y aller il devait y là-bas le cas de aussi c'est sûr et certain que c'est frustrant j'espère qu'il aura la mentalité aussi lui ah une grosse mentalité mm-hmm. pour continuer carrière am ba mu xam ne bu mu parce que lii j'espère qu'il a parlé avec lui je sais pas qu'est-ce qui s'est il fait partie des meilleurs de tes attaquants nga jékki saa yi ko foofu bàyyi ko aussi ci club am. j'espère qu'il a qu'il avec lui. Euh. peut-être communication daal laa xam ne Aliou j'espère que si fekkee ne communication lii muy def def na communication avant mu def lii. Mm-hmm. je pense que ça ne posera pas de problème mais bu fekkee deful communication. ñëw doxalee nii c'est sûr et certain que y aura des séquelles pour les joueurs leur leur leur avenir. est-ce que tamit sentiment ma man li ma bëgg a wax. développé développé non non dimbali leen ma. mais je ne pense pas que conflit d'intérêt am na foofu ko xam nga lan laay demandé je demande solennellement à la fédération sénégalaise de football. nañu xool ñan ñooy agent wu suñu joueurs benn par benn bés buñ ko xoolee. bés buñ ko leeral. ba caaf dafay xam. bés buñ ko leeral caaf xam man maa ngi ko wax. mais mais c'est normal tamit bu ñu am di am di nekk di nekk. doo dégg li ma la wax. <laughs> billaahi xam naa <laughs> ou bien ñu xool enquête ñu def enquête xool maanaam joueur bu nekk. Mm-hmm. kan mooy sa euh, conseil sa agent. kan kan la ni bi deexi caaf dana xam fii ci dëkk tey mën naa ko wax <laughs> d'accord beneen affaire la nag xaaral na man ma jeexal man te ci kii bi maa ko sànni maa ko ace jëlal manquement ci list bi mm-hmm. Omar Seck mm-hmm. yow naka nga mën a euh, man li ma jàpp moom mooy loolu Aliou Cissé dafa li mu waxoon mooy man avant muy def euh, liste bi laa wax taxaw ñëpp mën na leen ne eh, gis nga ñiy dem Coupe d'Afrique ñoom ñooy demaat ñoom ñooy ñoom lañ njëkk def priorité mais naka nga mën a comprendre ci ci góol yi il a appelé Edouard Mendy Alfred Gomis ak Seny Dieng euh, Edouard Mendy il a retrouvé les buts le titulaire de l'équipe nationale il a retrouvé ses les buts il est titulaire dans son club waaye mais Alfred Gomis sama doomu baay bi Alfred Gomis troisième gardien la troisième choix dans un club troisième choix nekkoon sa deuxième choix pousser vers la sortie. nga jël koo xam ne mës nga ko woo en équipe nationale mosoo ko may chance. Mm. muy Mori Diaw. Mori Diaw mais nag mais nag euh, Fati bu dem coupe da jël. coupe xaar damay xaar damay wax muy joué ci championnat boo xam ne foofu la Alfred di joué. Alfred des fois mu toog ci banc bi des fois du toog ci banc bi moom muy titulaire ba léegi ba démb ba contre kii il était titulaire. ah nga jël ko bàyyi ko yow nga dem jëli kan Alfred boo xam ne amul kii amul compétition. beneen affaire mooy que li may wax rek naa ko waxaat léegi Sénégal yi nag ne waa ngay wax rek dama ne suñu football local <laughs> am na lu mu mérité quand tu prends un gardien tu l'amènes nga yóbbu ko en équipe nationale mu dem Coupe d'Afrique mu dem nangam moom moom boo jël moo ngi jox moom jël ko parce que moom mu ngi compétir ak Casa te joué na Ligue des champions joué na équipe nationale locale waaw mi ngi sélection locale quoi. muy sélection locale. te ba pare mun naa andil euh, club Casa. wax ma loolu à chaque match. <clears throat> à chaque match boo ko convoqué dañuy calculer au au minimum rek. Euh, Sénégal am na euh, kii Casa am na lu mu dee dee dee ci ci ma convocation bi rek waxuñu mat parce que après chaque match dix mille dollars la. six virgule sept millions. Ah, waaw six virgule sept millions. dégg nga depuis préparation bi ngeen toog chaque jour préparation. waaw waaw waaw. Casa day am maanaam xaalis. nga permettre à sunu football local au moins bu dee da ngay dimbali kenn koo xam ne amul euh, compétition nga dimbali koo xam ne au moins pour sa football local. mais Gomis man loolu je jox la benn exemple rek. ma jox la benn cas. Mhm. parce que euh, ñu may signaler Lamine euh, Lamine Diatta. moom agent beaucoup de jours ci tanière bi la. moo tax <laughs> moo tax non non gars yi dañuy tooñ rek. Eh, eh, eh, mais tax il n'a pas de contrat avec la fédération. non non dañuy tooñ rek non du non du du agent. amul du agent du agent agent. mais lu tax amul contrat bi agent benn jour la woon benn jour la woon. lu tax amul contrat non agent benn jour la woon muy Sané. waaw Sané. mooy Lamine Sané. mais mais lu tax amul contrat non Lamine la wala. Lamine kooku la nekkoon agent mais bi muy bi muy nekk agent am. agent bu duggagul fédération. non dafa ñëw ah, ah, bi muy dugg fédération fekk ne agent booy bi la ak ses frères tous ses frères moom moo leen. Euh, ok da leen euh, amul contrat. contrat ak fédération. non enquête. ah moom tey jii ay pige lañ koy jox ay kii. no non non gis nga bu nu yàq ñun ñëpp ñoo bokk man je défends personne. non non c'est normal tamit man c'est quelqu'un de loyal c'est quelqu'un de loyal. xamante ne la il était agent. il a sa licence mm. bu ñu am. moom il a été avant bien avant que mu ñëw ci biir fédération. di ko gars yi di woo ak Lamine Sané ñaari frères. c'était des moom dugguloon sax ci ay agents fédéraux mais c'est sont ses frères. parce que ñu dëkkandoo Bordeaux. ñu confier ko ne ko jëlal booy en main. waaw noonu la demee. man je la pas na ma may benn affaire. Mhm. gis nga. Euh, gomis ñu koy d'accord xam nga joueur nga woon <coughs> joué nga haut niveau. Mhm. Auxerre Portsmouth yooyu yëpp te foofu c'est le haut niveau. Mhm. xam nga affaire agent. deux fois de fois. pour euh, éviter conflit d'intérêt bi. agent bi day retiré wu. moom mooy négocier de. waaye du feeñ. moom. day retiré wu. mu waaye moom du feeñ. parce que day bañ conflit d'intérêt bi. exactement Thierno Seydi. maa ngi koy wax sous son contrôle. Thierno Seydi bu dee yaa ngi may dégg. moom mi moo njëkk a soulever problème mu. Mhm. Lamine Sagna boobu. Thierno Seydi moo ko wax. ci benn mais loolu confidentiel aussi. parce que Thierno Seydi c' est un agent. non c' est xam nga dama lay wax ne la c' est loolu mu la wax noonu. non on a vérifié l' information te loolu amoon na. waaw dama ne. xoolal mhm. dama ne la man maa la koy waxaat fii. waaw bu ñu defee enquête. Mhm. mu leer. Mhm. ñu ne acca nañu génne agent yëpp. <laughs> gis nga gis nga ci kaawu kii bi gis ci kaawu euh, ci kaawu attaquant yi. Habib Diallo. Famara Diédhiou ci kaa boobu. bu ñu ci génnee vraiment kan mooy agent diw kat mooy agent diw. loolu moom caaf dina xam loolu moom caaf dina xam Sénégal moo wax la Gomis mais man man moo wax la Gomis loolu mënta ñàkk gis na dans toutes les <laughs> fédérations dans toutes les équipes nationales ah. loolu mënta ñàkk ci équipe mooy dama wax ne la lii y avait pire avant parce que tey jii joueurs yi ci bari léegi dem nan bul fàtte boobu léegi Aliou l'a utilisé plus de quatre-vingts joueurs mm. am na ñu bari dem nan mais tey jii lii ngeen di wax nii yàgg naa ko dégg ci tanière bi mais ci kaw lamin moom dama lay wax ne la Lamine n'est pas dans le staff Aliou moo ko woon dans le staff la Ali euh, Lamine c'est lui qui s'occupe des passeports des de de des comment ça des binationaux affaire yu mel noonu il était il s'est sur sur parce que y a moment dañu wax ni il faut que xaw ma ñaata euh, dirigeant ñoo war a toog ci banc bi ñoo war a toog ci banc loolu moo ko tax mu retrouver foofu mais c'est pas parce que dafa war a ñëw parce que conflit d'intérêt wala affaire bi man mii da man mii man maa njëkk kaas loolu hmm. maa njëkk a kaas loolu ma woo ko ma ne ko mon frère lii bu fekkee ne kii ne retire-toi de ça. du la wax lu am déedéet déedéet déedéet moom dana ko fa sa xolal. dinaa la wax leen de. xolal ma ma wax am di yow xam nga man xam nga sama jikko. non non non non non non non non non man duma taxaw sax di taxaw di di di di di focaliser wu. non yow sa problème xam nga mooy lan. Mm-hmm. man xam naa. yow loo gis. Mm-hmm. dañ koo kaas. Mm-hmm. waaye dama ne am na yoo xam ne. sincèrement. jaaxi. li ma dégg man certains jours wax ma. waaw ah. ma ko toog fii di ko wax ci plateau ci conflit d'intérêt bi am ci équipe nationale ak yooyu. na comprendre mais am na loo xamante ni. mais am na pour dama lay leeral. ñi ñu tudd seen tur. waaw.